2024 mbokk yi ñu teewlu ñoo ngi rafetlu ànd beeg programme seen chaîne de télévision 7TV ñaari waxtu di 14h jot na dalee nag jàmm si jotaayu xibaaru diggi bëccëg gi waaye laata ñu si rek bi comme ni ñu koy defee saay su ne dañ leen di jukkil lii si nar a gën a fës bokk na si tabaski atum 2024 fii si réewu Sénégal réew mi di julleeti ñaari yoon am nañu julli tey ñeneen ñi di xaar nit ki suba si altine gi. niki nag euh, ni leen ko coordination des musulmans di Sénégal santané noonee moo tax nag ibaadu yi tey jii lañu rey euh, seen xar tey si suba sa mosquée bu Mermoz imam El Hadji Abdoulaye Tall mu doon jiite julli tabaski ba si xutbaam nag ba mu yëkkatee kàddu dikkaat na si solo sa feetu tabaski ak li muy wundu si diine lislaam ñàkk déggo moo jip sa ngën saax nekk sa diwaanu Louga foofee moom askan wa ñoo taxaw tembe di diiroo rek mbagg ak seen maire la ñuy ñi rek mooy ab projet bu fa maire yi ba bëgg a jëmmaal mu di tabaxum marché si tali ba nga xam ne mooy route nationale ba jaar sa digg dëkk ba askan wa nag la ñuy ragal mooy ak marché boobee accident yi fa doon faral di am gën a bëri loolu daal moo tax ñuy sàkku si ñi leen jiitee ñu fexe rek bu ut beneen bërëb boo xam ne daañu fa mën a samp boobule marché ngir rek wattu seen kaaraange leerali si lay jotaay xibaar lay doon. reportage yu bés bi dañu koy jagle la embouteillage yu metti yu jéggi dayo yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku fi si ndakaaru yëfi nag di gën a doy waar yematul rek si heure bi nga xam ne si la nit ñi di liggéey ak heure yi ñuy wàcc daanaka waxtu yëpp tali bi day fees dell ak oto oto du dem oto du dikk li waral lu ni mel bokk na si li mu doomu aadama yu takku yi nga xam ne ñoo ngi fii si capitale bu réewu Sénégal ndax nee nañ si téeméeri doomu aadama yow jël ñaar fukk ñoo ngi fii si ndakaaru yéele embouteillage am ay yu doy waar si wàllu koomu dëkk bi reportage yu jénn Sow la dinañ ko teewlu it si bile jotaay xibaar mbokk yi gën a fës si bopp jotaay xibaaru digg bëccëg gi neskis ñu ñëw ki yéen gi réewu Sénégal di julleeti ñaari yoon ndax tey jii nag uh, ibaadu yi ci lañu tabaski tey ci dibeer gi beneen pàcc bi di xaar ni ki suba si altine gi di yem ak fukki fan ak juróom-ñaar si weeru juin atub 2024 ni ki ni leen ko coordination des musulmans du Sénégal santé imam El Hadj Abdoulaye Tall moo jiite tey si suba julli ga doon am euh, sa jumaay euh, Sotrac Mermoz ba mu yëkkati kàddu nag si xutbaam dikkaat na rek si solos feetu tabaski bi li muy wundu si diine lislaam ñëwaat na it si digle Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam dañuy teewlu ay kàddoom si micro Omar ak Pape Diop. nekkul farata waaye ku ko am te mën koo jaamu yàlla la gu rëy rëy ci yow te yaaba ju mag a mag nga ci amee waaye nag nga teg ko ci yéene ju sell te yàlla rek tax ndax nit lépp lu muy def te fekk yàlla taxul. daanaka du ci am dara amul importance nga jënd xar mu mag a mag a mag te matul tabaski mën ngaa jënd xar mu tuuti tamu mat tabaski fàttaliku leen ne bisa ngi ñëw boo xamee ne yéen ñëpp da dellu ci seen borom te importance bi xutba bi doon wax tamit mi ngi ciy wax naan Seydina Muhammad doon na wax ne yéen ci seen diggante moytu leen di tooñante moytu leen kenn ku ci nekk ci sa deru morom sa deru moroom ngay wax ci moom lu amul wala sax lu am loo xam ne nii bu doon yow doo bëgg ku la ko nettali moytu seen alal bu leen ko jël te neexu leen moytu seen njaboot wax na ne tabaski maanaam war na képp ku kum manti doon moo xam ku am la wala ku amul ñuy fàttali rek ni euh, beneen pàcc julliti réewu Sénégal daanaka sax ñoom ñoo ëpp ni ki suba si altine gi lañu fas yéene rek euh, amal seen tabaski ñoom nag ñañu topp mooy euh, waa commission nationale de concertation sur le croissant lunaire du CONACOC ba tey si lu soxal waajtaayu fetu tabaski googee la ñuy des ba tey niki nag njiitu réew yu jot a jaar fii si réewu Bassirou Diomaye fay euh, jël na dogal baal si lu tollook ñetti téeméeri prisonnier ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñoo xam ne ñoo ngi woon si prison yi ne si biir réew mi lu nu mel nag sàkkuteef bi du lenn lu dul fexe rek ba may doomu aadama yooyee nga xam ne dañoo jote woon ak yoon si ay mbir yoo xam ne taxu ko demee noonu ñu mën a dem euh, feete tabaski bi ak seeni njaboot. ñu dem euh, si jaaba ba maanaam marché sa diwaanu Thiès foofee moom askan wa seen xol neexul fi mu tollu tembe ndax dañoo gis naa naal ni euh, yenn njëg yi dafa jékki-jékki rek yokku te ay waxtu dong moo des ci tabaski bi lu mel ni soble bi jamono gi ñuy waxee yéen kilo ba ñoo ngi koy weccee foofee sa diwaanu cees lu tolloog euh, maanaam diggante juróom-benn fukk jàpp juróom-ñaar fukki dërëm si suñu koppar askan wa nag di ko méttut lu lool dañuy teew teewlu leerali ak euh, Ali Ndiaye moom moo jiite wala sax mooy tofop euh, ka jiite UNACOIS jàppoo foofee sa diwaanu Thiès dañuy teewlu ay kàddoom si micro Binta Traoré ak mataax Baba Diarra li njëkk ci prix yi yi moom méttiwul méttiwul ji nii mën a wax mooy pomme de moo xaw a cher tuuti mais soble moom vraiment actuellement disponible na ci marché bi deuxième bi ci mooy prix bi méttiwul yenn métti yi ndax daanaka li ëpp ci marché bi te jii soble bi li muy jar ci sac de vingt cinq bi six mille la li gën a cher six mille sept cent cinquante six mille sept cent cinquante boo koy xool mooy deux par kilo détail bi dina dem ba trois cent trois cent cinquante affaire yooyu kon yaakaar naa loolu mu wax di yàlla méttiwul ci côté pomme de terre bi moo xaw a cher parce que pomme de terre bi tax mooy benn nit moom moo ko am di ko jaay ci prix yoo xamante ne day xaw a metti te fi muy jóge tam dafa sori moo tax bu njëkk see ci marché bi day dem ba onze mille onze mille cinq cent ba douze mille sac de vingt cinq kilos bi léegi nag bu dee douze mille la mooy nekk quatre cent quatre vingt quelque ci waajtaayu tabaski googee sax la ñuy des ba tey dem sa diwaanu Diourbel jamono gi nag moom marché ya nekk sa lee région xumb na lool njënd mekk njaay mi mel ni tulli ak male jaaykat yi nag yéwén lool xeetu marchandise bu ne la ñu lal atu ren jile mu di ay yëre ay dàll ay pochette ak yeneen ak yeneen clients yi daal tànn sa bu la neex la dañu teelu reportage yu Abdoulaye fay ay fan yu néew rek des ñu daal di dëgmal tabaski sénégalais yi ñu ngi ci wàccaay si ñeen borom kër yi di concentré wu ngir wutum xarum mu ñu mën a lewatal ci bésu feet bi le ñenn ñi ñoom ña nga ci wër ci marché yi ngir mën a satisfaire seeni soxna ak seenu njaboot ci jouru tabaski bi le ci marché Ndoumbé Diop bu njaareem foofee nag ambiance ba mu ngi au rendez-vous waaye bu ñu sukkandikoo ci yenn jaaykat yi ñi nga xam ne ñoom ñooy clients yi ba léegi nii ñu yéex a jënd loole nag moom mooy xalaatu jaaykatu prêt à porter bi lee tabaski bi moom jegeen presque mais daanaka boo xoolee marché bi nit ñi ñu ngi ñëw di dem waaye daanaka taxagul jënd bi demee noonu ñu moom Jurbel d'habitude jëndkat yi moom dañuy bàyyi ba dernier moment rek ñu doog a ren aussi contexte bi ñu fekk tamit mel na ni tamit dana xaw a wute ak nam daan demee jaaykat bi itam di jaay dàll moom itam lu ni mel lay xamle waaw instant bii de moom daal instant bi doxagul quoi parce que événement Diourbel moom dernier mais ñu ngi koy waajal ñu ngi koy pare bagage yaa ngi ñu ngi wàcce bagage euh, ay jama yu rafet sax mais instant bi moom gisaguñ client quoi. wetu jaaykatu daal yi ak jaaykatu yu yi nemmeeku nañu itam ay tatoueur ñoom ñi nga xam ne nag ñu ngi ci wàccaay bu baax a baax teg ci di xaarandi client yi. tatouage moom xew ci jamono moment bi ñu ne parce xale yi bu événement jotee ku ci tatouage da ngay mel defoo dara bon préparation nañu ci préparation tabaski Diourbel moom pour ñu pour événement bi teel a déroulé il faut ñu dem ba sëg ci ci jouru tabaski ñu soog a déroulé yenn déroulé yi mais nag pour le moment ñu ngi fortaatu benn par benn macha allah. malgré situation bi yëpp ñoom commerçant yeeg tatoueur yi ñoom am na nañu yaakaar bu baax a baax gis ñii di clients yi laata bés. dañuy jóge Diourbel dugg biir Louga dem rek sa gare routière bu diwaanu Louga foofee moom dawalkatu ndaamaar ya fa nekk ni ki démb doon nañu yëngu-yëngal jogoon rek euh, génn baare yoon wa lañ sa jublu woon du lenn lu dul fexe rek ba war gaynde yi du ñu yàpp ay client si julli gile nee nañ daal war gaynde yooyee dañoo yàq yaxet seen liggéey sa bor ba moom ñoo ñee di dawal ay war gaynde li ñuy sàkku si kilifa yi jiite réewu Sénégal mooy rek ñu jàppale leen ba ñu teg yoon si seen liggéey dañuy teelu reportage yu Góora Mbooj lu dul ay bés ci tabaski bi regroupement chauffeur yi nekk ci gaaru ceer bi ci diwaanu Louga taxaw téeméer ngir xeex war gaynde yi ndax dañuy yàqu seenub liggéey ñoom ñi nag daal di bloqué fi nga xam ni mooy buntu Louga bi dama bëgg auto transport war bi kenn doot gaynde affaire sàcc la mun ñàkk xëy na ñu ngi sàcc mais nag fësal ko tam ko nangu war gaynde moom dañuy yàq liggéey ndax ni ñu ñun ba ñu ñu chauffeur chauffeur si képp ku yor permis tey dund ci oto ñëw garage nga liggéey fa soo liggéey bu ngoonee loo fa war a am nga am ko mais wargaynde yi amuñu licence amuñu sañ-sañu daw. war wargaynde yi nag seen côté ñoom ni jàpp ni. chauffeur yi bëgg mënul nekk. mais lan moo tax ñoom ñoom transporteurs yi ñoom ñoo ñu ëpp doole ñoom ñoo ñun ay xale ñu bëgg a liggéey lan moo tax ñoom bu ñu jëlee ay oto duñ ñu ko jox. du musu ñoo ñëw imposé ñu ko jëlee seen i jarbaat la yow mii chauffeur allo Dakar nga ah ah nga nga bàyyi oto allo Dakar bi fii koo ko fi defal mu bàyyi ko ñëpp am terme transport fii mais dama ne la war gaynde dañ leen a war a jox autorisation ñuy daw di dem di dikk parce que ñoom ay xale la ñu ngi doog a dugg ci àdduna te dañoo yor njaboot waaw te seen oto yi nag moom la ñëpp gën a taamu ko seen set place yi li bëgg nag mooy ministre bi mu légaliser oto yi mu dugg coowal transport bi nag doon loo xam ni bu si autorités yi daal di waxul dina ëppi loxo. si wàllu dem ak dikk bi sax la ñu des ba tey tàbbi si reportage yu bés bi ñu jagleel embouteillage yu métti yi nga xam ne dañu koy nemmeeku fii si Ndakaaru yëfi nag tàmbalee di jéggi dayoo ni ngeen koo xamee yamatul rek diggante suba ak ngoon heure yi nit ñi di liggéey ak heure yi ñuy wàcc daanaka waxtu yëpp daal yenn pàcc yi si Ndakaaru dafay fees dell circulation bi taga tembe oto du dem oto it du dikk li waral nag lu ni mel bokk na si li mu doomu aadama yu takk yi nga xam ne ñooy yeewoo ak di liggéey fii si ndakaaru ndax nee nañ boo jëlee téeméer si population maanaam askanu réewu Sénégal ñaar fukk ak juróomi ak lu tekk ñoo ngi fii si ndakaaru yooyu la jafe-jafe si wàllu dem mbekk dikk bi am ay njeexital yu doy waar nag si liggéeyu transporteurs yi rawatina taximaan yi ni ko jëlee ca corniche west bu ndakaaru ba foofee ca école normale supérieure constat bi benn la yile embouteillage sax dañ leen daal di nemmeeku fépp ci biir capitale bi mu nekk lu métti ci chauffeur yi ndax am foo jaar sax doon na lu jafe yenn saay sax faaw ñi di tàq der yi taxaw ngir rek mën a organiser li di circulation bi. c'est infernal foo ko natt moom weesu na moom loolu moom mun naa la ko confirmer perte de temps bi. loolee lañ nemmeeku ba foofee ca Grand Dakar fii nag li ko gën a yokk di ñëw bus rapide transit bi mu nekk li nga xamante ne dafa rek xatal yoon yi ko sëkk. BRT bi moo waral embouteillage bi ndax ndax gis nga fi ne nii fii dañ lay aaye nga tourné gauche te fi ne boo rond-point ba ngay wëri te rond-point ba dafa sori. fi ne daal client am na lépp am na mais kenn mënut a liggéey ndax embouteillage dafa weesu gàllankoor bu ko mënee weesu kay mënee weesu na ko. ngir rek mucc si yile embouteillage sénégalais yu bëri li leen gënal mooy jël cak-cak yi ndax gaaw a yegg fu ñu jëm soo gisee gars yi di gën a utiliser cak-cak yi mais raison pour laquelle parce que circulation bi moo andi loolu. embouteillage waaw am na ñu mu andil jafe-jafe am na ñu mu jafe man de moom ku mel ni man du la andil jafe-jafe. macha allah ñu ngi gis suñu boobu baax a baax. ñu bëri nag jàpp ni que li waral yile embouteillage bokk na si nit nit ñi bëree si biir ndakaaru te li ko waral mooy entreprise yu bëri si biir capitale bi lañ leen samp loolu waral ñu daal di woo njiit yi ñu désengorger Dakar. jël beaucoup de ministères beaucoup de des directions génn ko dakaar boo ko defee ñu mën a féexal Dakar tant que defuñu loolu Dakar chaque jour embouteillage du fi dañ parce que tout est centralisé à Dakar. donte ne sax nguur yi jël nañu ay jéego yu am solo ngir xeex yi li embouteillage dem sax ba defar ay otopon ak li ni terewul ba tey moo ngay gën di jéggi dayoo ci biir réew mi. ba Omar Sow junj naa leen ko ci bopp xibaar yi sa Louga askan wa ngën saa ñëw génnoon doon yëngu yëngal ñoom daal lañuy ñuy mooy ab projet boo xam ne mairie ba. moo ko fas yéene euh, samp sa boobule diwaan mu di tabaxub marché sa booru route nationale di yoon ba nga xam ne moo jaar sa digg dëkk ba yoon boo xam ne it bu ñu sukkandikoo si kàddu askanu ngën saax dafay faral di ami accident dafa bëri lool la ñuy ragal rek mooy ak marché googee accident yi euh, gën a bëri loolee daal moo waral ñuy sàkku si seen euh, kilifa di maanaam ko jiite mairie ba mu fexe rek ba xool beneen bërëb boo xam ne daa ñu fa mën a tabax boobule marché ngir rek wattu seen kaaraange marché bi fii nu ko defal benn li tax ñu koy xeex mooy insécurité xeexunu marché rek jëm turu marché rek ndax buñ doon xeex turu marché duñ ko jox site kon insécurité la ñuy xeex te insécurité bis bu nekk nu gis ko parce que aw nit ñàkk nañ ci seen bakkan fii ba tàyyi nu gis ko nun ñëpp moom xam na ci dara fii benn entrée la am benn entrée bii moom la am en même temps fii dafa nekk ci dafa jege ras bi fii yaa ngi dégg ñoo am fii ab déviation boo xam si oto yi jógee Louga te la ñuy jaare dugg ci dëkk ba oto yi jógee Ndar dañuy continuer oto bii jóg génn dëkk bi day jóge nii tali bi lépp nag mu bëgg fatt fa fépp oto yëpp day ci benn barab loolu mooy cause accident yi néew ñu accident lay am mais am na loo xam si boo amee ci barab day yokk accident dañuy àdduwaat euh, jëmale ci génnub àdduna ma dem ba Sock mi nga xam ne mu ngi wuy ji boroomam bërki démb sa Paris bi muy am si lu tollook juróom benn fukki at ak juróom moom dem si yàlla ji nag euh, ràññee nañ ko lool fii ci réewu Sénégal si wàllum syndicalisme moom kenn mënul tudd lu ni mel te sa xel di dem si kii di ma dem ba Sock ndax liggéey bu am solo boo xam ne def na ko si si ñeent fukki at yi nga xam ne moom la ñu weesu fii si réewu Sénégal daanaka daal nguur yi fi jot a jaar yépp moom Mademba Sock doon na xeex ak ñoom si lu soxal rek sàmm ak ak yelleefu liggéeykat yi dëdd na nag waaye bàyyi na fi héritage maanaam doona ngoo xam ne duñ ko gaaw a fàtte dañuy teewlu njàngatu Mamadou si Albert ak Momar Cissé faatu ki nga xam ne mooy Mademba Sock loole daal ñàkk la nit ku nga xam ne ci wàllum syndicalisme daanaka ku fës la woon ci moom Mademba Sock mooy incarnation syndicalisme bi nga xam ne sax mooy moom fa sa bopp waaye tamit fexe ba lii nga xam ne daal mooy liggéey bi nga xam ne moom la askan liggéey ku ci nekk mën cee gis boppam loolee mi ngi ko daal di suuxat ci li nga xam ne mooy nguuru socialiste yi ba ci première alternance ci atum 2000 la ay grève sectorielle ci wàllum courant bi ci wàllum njàng meeg njàngale mi ci wàllum wér-gu-yaram yoo xam ne day toftalu ci liggéeykat yi nga xam ne ñoom tax na kat Mademba Sock nekk daal koo xam ne seen jafe-jafe moom la ñuy woo ngir mën koo saafara syndicaliste autonom ci wàllum enseignement ci Sénégal waa SAES jaare Sutelec ak secteur bi nga xam ne mooy wàllum wér-gu-yaram ci wàllum administration publique lu baree bari daal loxoom dugg na ca ngir rek xeex ba nga xam ne moom lañ xeex loolee mën a am njariñ waaye tam ci wàllum courage am ñàmbaarteem ci détermination gëm boppam gëm la mu ne tey jii mu doon la mu doon moom Mademba Sock moo daal di marqué dunduk syndical bi ak ci wàllum politique Sénégal nekk ci wàllum syndicalisme ak ci wàllum entreprise moom Mademba Sock dafa amoon style bu nga xam kat moo ko moomal boppam discours bi nga xam ne kat lu bëree bari jot na ko cee soppi moom ci boppam fexe ne ba yëngal wàllum syndicalisme ni ak la nga xam ne kat mooy mbébétam moom Mademba Sock daal di dugal loxoom ci nga xam ne mooy participation ci liggéeykat yi ci wàllum xeex ci fexe daal ba gouvernance institutionnelle ku ci nekk mën cee gis sa boppam rawatina société publique yi nga xam ne mooy IPRES ak ñu mel ni ñoom moom dundam yëpp ci wàllum syndicalisme la mu am ci solo lool ak ndono lu nga xam ne bàyyi na ko ñii di ñëw ak ñi ñëwagul ñu di ko jaale famille am ay jegeñaalim liggéeykatim ak ñi nga xam ne ñooy wàllum syndicalisme nii ak ci askanu Sénégal la ñi koy ñaanal suuf woyof ci kawam. allahuma amin dañuy jeexaleek euh, xibaar yi bi biti réew si tënk tàmbali kook euh, jëye ji am niki démb sa Somalie ba lu tollook euh, juróom-benni takkader ay soldat ñàkk si seen bakkan ñoom daal oto ya ñu waroon rangale woon oto yooyee nag la ab bombe éclaté ci seen kaw ba ñu ñàkk seen bakkan ñu bëri jëlee ci ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo rek ci xibaar yi ñu taataane ci police somalienne ak kilifa yi nga xam ne ñoo jiite boobule réew nee nañ nag yëf yi moo nga xewe sa ville bi di Gof Gadjut nga xam ne digganteem ak euh, Baydowa tollu na ci fanweeri kilomètre mu nga féete nag sa bët saalumu réewu Somali dañuy jeexaleek euh, armée bu Israël ñoom di yëgle ni ni ki démb si gaaw gi lu tollook euh, juróom-ñetti soldat si ñoom ñoo ñàkk seen bakkan gannaaw rek bi seen ndaamaar dëgge ab euh, bomb yëfi kalaate si seen kaw yëfi mu nga xewee nag sa Rafa nekk sa bët saalumu band bu Gaza loole lañu euh, xamle si ab communiqué maanaam bataaxal boo xam ne armée bi moom moo ko siiwal nee nañ daal jëye ja mu nga amee sa talal sultan nekk sa région bu Rafah mbokk yi ñu doon teewlu cant ak ngërëm ñeel na leen fii la ñu dax képpee jotaay xibaaru diggi bëccëg gi amoon mbégte lool doon jàkkaarloo ak yéen si kanam tuuti bu juróom-ñaari waxtu jotee di di h sama naataango Germaine Anastasie Diouf dina fi teew tënk xibaar yi si kàllaamay kocc ak nasaraan ñu leen ngeen woy ak programme seen chaîne de télévision 7TV.